ndaanaan laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne foo jaar laa mëne dama mën ci bii boor mën ca bee ci yi boor ak ci njaay nu roowu maag ñoom tuuna rëy ma waa na roy maa ko baaxi ñii ma yor si jeeg gën mbokk yi ci li nga xamante ni mooy écran bi comme mm. niñ leen ko daan defalee bu ñu ñëwee indi leen combat bu neex indi leen combat bu mag père di ko tigga combat bi wax ndaanaan bi daanu nan la def ba daanu euh, ndaanaan bi daanu ban erreur la def ba daanu bu léegi mu bañ koo defati tey nañu indi leen combat bu neex boo xamante ni gonek bawal la ak gone gonek géejawaay muy Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ni mooy Tapha Tine nekkoon làmb ju neex Balla teg titre roi des arènes bi Euh, di bëreeg ki nga xamante ni mooy bom euh, tafaatin euh, loolu yëpp dinañ ci ñëw léegi su ko defee Père waxtaan nañu combat bi Père làmb jaay noonu tafaatin ak Balla Gaye de waaw jërëjëf hmm. ñoom ñaar ñaari talaa la ñoo xam ne ñaari morom lañu ñu bokkandoo jamono daje ci mbappat yi daje ci ba yàlla dina dox ci ànd daje ci mbappat ba mu jigi ñu bokk arène bi xam nga ñaar bu ñu naree jëm yoon li olof di wax bu ci naree dax bu baxee xeej yaa ngi dégg cin bu naree neex li olof di wax rek bu baxee xeeñ mm. parce que ñoom ñaar ci mbappat boo leen ma saa xool rek nga xam ne nga naan ñii suñu guddee fan rek des na leen dégg muy tafaatin mi muy Balla Gaye mi seen mbër képp ku mu yàgg seetaan làmb rek yàgg leen a gis rek seen ak mbër bettu la waaw wërsëg nag mooy ñoom ca kanam yàlla yor wërsëg nag mm-hmm. wërsëg moom na mu koy seetlee moo ko xam ñu nekk ñaari adversaire ñu nekk ñaari adversaire Balla Gaye féete nii suñu càmmoñ euh, euh, euh, Tapha Tine féete suñu ndejoor waaw mhm. muy ñoom ñaar ñoo xam ne combat bi ku nekk dafa am valeur ci yow parce que Tapha Tine su daanoon Balla Gaye mii euh, tey ji dina ko yóbbu fu rëy rëy rëy waaye Balla mii tamit jamono yi tamit temps yi mu ngi nekk ci rythme boo xam ne bi rythme boo xam ne yi su daanoon euh, suñ ko daanoon moom it dina xaw am lu mu wàññi tuuti ci carrière waaw mais nag booba dañuy xam ne champion ko daan rek parce que ñaari champion yi ku ci daan sa morom war naa a boo xoolee ci taay bi ñoo tolloo ci daay bi lépp daal ñoo ko tolloo nii lii mooy combat nattangoo combat nattango. nattango. Mhm. waaw yaa ngi jubati sama. tolloo nañ dayoo. waaw tolloo taay. tolloo kattan tolloo âge. mu ngoog mooy lii waaw moo mu ngoog gis nga kon nag mu ngi noonu arbitre baa ngi leen di seet. Uh-huh. ñu ngi déew arbitre ah, baa ngi leen di seet. waaw. Uh, léegi nag fii. Mm-hmm. xam nga ñaari mbër. Mm-hmm. moo tax coach bu baax. course bu mën nag laa wax. course bu tax ñu naan course. waaw bu tax ñu naan course course day mën a bëri xam nga bëri ak football ak karaté ak judo yooyu du benn. yooyu judo da nga koy jàng. Hmm. de bas âge déplacement nooy attaqué nooy aller nooy léeg la koy jàngal étape par étape ceinture blanche ngay dem orange di dem day par échelon ngay dem. bu dee football dafa am lu ñu lay jàngal boo taxee bal bi ni nga koy dóore bu ñu la paasee bal ni nga koy tegee bu ñu la baasee yooyu dañ koy jàng bëri nag ñoom da ngay xëy rek di ko foyee rek ba xëy rek ñu ne mën naa bëri. moo tax de lu ci ne soo ci amul loo ci mottalikoo ci yenn sport ba jàng ko mm-hmm. ba am loo xam ne da koy jàngi feneen boole sa bëre mm-hmm. toujours sa bëre day des mm-hmm. surtout judo nag parce que judo la mu lay jàngal boo ko mënee ci base ba boole ko sa bëre rek da ngay naqare daal loolu lu am solo ci bëri ma di ko dénk yéen bëri yi ngeen bàyyi ci xel gis nga ñu ngi leen di seet ñoom ñaar kenn ku nekk euh, faxas la xool ba xam parce que galaaj yi ak takk yi ñu takku yëpp moo ah. bokk na waaye bokk bi amu ci solo lu bari. ñoom gàllaaj waaw yii téere yi gisoo takku bi bari bii. yëpp daanaka euh, bariwul ci solo. njariñ bi bariwul. waaw parce que bu bari woon solo. Euh, kon ñu mbëri mag yëpp bu ñu pare dañ koy jox seeni doom ku ci ne jur nga doom joo xam ne mbër nga wala wala wala nga rakk wala am nga rakk wala am nga jarbaat boo xam ne bi ponkal la. waaw te mënta tub la am la ji kon gàllaaj yi ñu takkoo yëpp lu muy mujjee taar la ci nii rek maanaam ci aar bi quoi. décor la. décor la ci taar bi rek. li ci ëpp da la. rek waaye ci bari doo xam ne kii. Mm-hmm. Ah, daal en tout cas daal nekk daal am sa ngërëmal waajur. Ah. Ah, te bañ di lekk àq. lu ci am solo la. père mu ngi waaj a sifflé. waaw teg li nga xamante ne mooy pied gauche. waaw Tapha Tine mu ngi noonu taxaw ñoom ñaar mais làmb ji nekkoon na ci làmb joo xamante ni keroog mbokk yi. Mm. foo sànni stade Demba Diop. mbàtt mm. mu tàgg. Mm. mu doon làmb joo xamante ne làmb neex la parce couronne roi des arènes bi moo nekkoon en mhm. euh, parce que Balla Gaye mhm. dafa am ndam jël couronne bi ci yax jóg yi ki ni ñëw am tafaatin waaw mu doon combat boo xamante ne fi mu toll nii. tafaatin jël na couronne daan na Balla Gaye moo jël na couronne bi. waaw parce que tafaatin xam nga maa daan ki daan daan daan yëkkati rek ndam la. maa daan ki daan yëkkati. Ah. loolu rek ndam la. waaw te it boo gisee parcours am fi mu jaaraan. Ah, ni mu def ñoom tey ñoom kii euh, Bombardier ñi mu def ñoom Cech defe naa daje na fekk Cech ñu fi daje ak ñeneen ak ñeneen bari na daal bari na fi ay gaa yu bari ah mu dajeel waa Abdou ñoom Abdou Diouf gars yëpp tey nga xam ne moom it mu ngi woon ci bonne voie uh-huh. mu ngi woon ci bon voie moom it aa ah, ah. uh-huh. waaw mu nekkoon père ci lamb non non mos ci am moo tax may la mm. gis nga sànq li ma la wax ne la mm. am na ñi ñuy wax ni ay roi des arènes yeeg ay empereur de arènes nag yooyu yëpp amul woon yii yëpp modifical lu maanaam addinaa dox yii yëpp commencé bees am mais bi ñu ñëwee bi mu ñëwee rek dañ ko waroon structuré teg ko ci yoon uh-huh. coupe du Sénégal gis nga niñ koy dañ koy organiser. coupe du monde gis nga niñ koy organiser. waaye ñaari équipe rek du ñu dajale ne kenn mooy kenn mooy moo jël ko doon coupe d'Afrique noonu la gis nga éliminatoire directeur bokk ba ci mujj final ko jël ko noon la. yooyu nag ñoom bi mu commencé jëm kanam CNG bi ñoo war ne tekk na leen ah trophée bii ñuy tekkat te muy turu trophée du roi des arènes yaa fi man war naa am base war naa tegu ci yoon arrêté leen ko ñu organiser ko nii woote composé yi bokk ci làmb yépp ne leen dañu bëgg di organiser roi des arènes kan moo mën nag ci làmb ji ay ca père laaj na Balla Gaye waaw mhm. laaj na Tapha Tine ba pare waaw arbitre bi sifflé na waaw Tapha Tine teg pied gauche Balla Gaye teg ñu tàllal loxo bi dafa tàllal loxo bi ñu daal di commencé léewtoo uh-huh. mais gis nga léewtoo bi yëpp dañuy may tàmbali bi kenn ku ne jàngat sa moroom di xool ba xam ku nekk lan ngeen di xam nga ki taxaw nee di léewtoo ne defagul dara mu ngi taxaw rek balancement di xaar mm-hmm. waaw mais duñ jëkke nañ ko mais duñ fa mujj nag ah déet duñ fa mujj ah dox ci kawam mm-hmm. fii tamit xis nga am na ci euh, seen déclaration am na lu ma ci déggoon lu mu wax benn jour ne ko bi mu ko ne maa jàpp sa doom day dóor ko ba mu yëgadee ni mu defoon Elton moom muy ànd ak Elton mu ne ko da ko da nga ko da nga ko da nga ko duma da nga ko xaw ma lan am na lu mu ko wax daal ne moom la ko def mu ne ko man maa koy faj Balla Gaye waaw loolu la ko wax loolu la ko man kay déglu naa ko benn jour ma ko loolu nga ko doon maa koy faj mm-hmm. waaw ñu dem mm-hmm. Balla Gaye gëdd waaw gis nga voilà gis nga gëdd arrière bi nii ah. arrière bi nii xoolal gis nga xoolal xoolal mi gis nga déplacement bi xool tey ah. teel moon la teel moon la déplacement bi rek fii la jëkk fóotee voilà ah, waaw ndànk nag gis nga fii ndànk waaw xam nga buñ la gëddee ngay arrière tànk bi ci kanam doo ko laal tànk bi ci ginnaaw lay def nii benn bi fekkoon gis nga toujours bii rek mooy dem benn bi ñëw. normalement tànkam bii voilà gis nga voilà voilà tànk bi ci ginnaaw bii. guddoraat bi mooy dem door ñëw mais gis nga fii xoolal day day fab gauche bi teg ci tànk bi day day day tax mu perdre équilibre. sa mhm. taxawaay bu jub bi baaxul dafa war a wàcc dafa war a tànk yi parce que njool la bu fléchir tànk yi tànk yi day am doole. léegi su ko defee xoolal gis nga gis nga tànk bi toujours tànk bi lay jëkk a jóg tànk bi ci kanam. tànk jëkk jóg nag bu droite bële moo war a jëkk a jóg nag. Mhm. droite bi. Mhm. comme moo ne ci ginnaaw. moom ngay yóbbu indi bii. parce am dañuy coup Balla Gaye. da da dootul am équilibre sax. dootul am équilibre dootul am dootul am te dina feeñ ci bëre bi ñu dem. gis nga taxawaay bi tam gis nga ba tey baaxul. Mhm. ñu dem. gis nga gis nga mu koy gëdd. ñu dem parce fii. moom xam na ne Balla day diriger bëre. waaye moom it Tapha Tine woon nangu Balla diriger bëre. gis nga Balla ñëwaat na ko waaw lii lii benn yoon rek. Mm. bi mu ko defee benn yoon rek. Mm. war na xam ne man tamit kii kat jom war na ko gëdd ne ko man it du ma nangu diriger ma. Mm. diriger boobu nag stratégie la. maanaam boo gëddee benn pas arrière. deuxième bi da ngay def latéral. dëgg la des accès. nii xool gëdd nga ma ma arrière boo ma gëddaatee nii laay def. des accès. waa ji ba lay dóor foog mu tourné taxaw jàkkaarloog yow comprendre nga. Mhm. waa ji gëdd na la un pas. Ah. nga arrière. Ah. su la gëddaatee bul arrière bu yàggee da ngay dem bu la gëddaatee dangay ngay désaxé hmm. ligne bi day dem moom yow yaay taxaw moom pour mu dóor la comme nii la jëmoon foog mu jàkkaarloog yow. foofu mën ngaa song mën ngaa dóor. Mhm. comprendre nga fi may wax bu baax. voilà mu nga ñu dem. ñu dem mhm. waaw. gis nga ba tey Balla mu koy. waaw ba tey mu ngi koy dellusi ko indiwaat loolu lépp gis nga yooyu yëpp. da hmm. da lépp mu ngi koy cokkaas rek ba léegi tabaar taxawul. Hmm. voilà gis nga gis nga loxo bi mu tàllal nii. voilà gis nga loxo bi mu tàllal nii. Tapha Tine waru woon de waru woon arrière. day fël loxo bi daw yéeg ko. da koy fël voilà day voilà gis nga day fël loxo bi yéeg ko. Uh-huh. Uh-huh. loolu moo doon def dafa doon fël loxo bi daw yéeg ko. loolu fen rek la Balla Gaye mën wàcc tibb ko mu fel loxo bi daan placé ko tëru ko bëri bi jeex tàkk loolu bari la waaye day fel loxo bi parce que bu gëddee bu gëddee taal loxo bi nii day day loxo bi day fel loxo bi mu ko taalal moom lay fel daw yéeg ko arrêt waaw foofu nag Balla Gaye mën na ko remise wala mu wàcc tibb ko bu tibbee day dugal loxoom rek fel ba ñu dem waaw gis nga ko gis nga fii ne gëdd bi muy dem nii mm-hmm. loxo war naa dem bu yàgg ba Tapha war naa provoqué fight bu yàgg gis nga fii tey waroon naa provoqué xeex bu yàgg gis nga tàllal loxo di ñëw loxo bi dañ ko éliminer mm-hmm. waaw gis nga gis nga. door na génne xam nga lii. wala mm-hmm. xam nga lii xam nga mu ngi daan nii jeex na. waaw jeexagul. ah ma yaakaar jeex na. déedéet jeex loolu loolu système mu mbër la rek day dalal xelam ay day dalal xelam ay kiyam quoi. ñi mu àndal mu àndal waaw mais loolu euh, système mu mbër la. nga ñëw gis nga gis nga fii nag voilà fii nag bi mu ko gëddee moom loxoom waroon nay dem. moom tafaatin moom tafaatin waroon nay dem. Mhm. fii ne gauche droite am da waroon dem riñaan mi ci suuf. Mhm. waaw parce que bu xeexee ci kaw rek foog moom am buti ci suuf. dëgg la waaw dafa waroon xeex ci kaw ñëw ci suuf. ñëw ci suuf waaw loolu moo doon yoon. waaw gis nga tey parce que njool la loxo yi jot na gis nga voilà xoolal. léegi bàlla dóor na gis nga bàlla. Mhm. kor bi loolu wuti. bu koree si gi dóor ëpperkin gis nga ko. xam nga rocc ko nañu. gis nga fii da koy woo ci xeex xeex xam nga xeex bi mu koy woo yëpp pour sonk ko la gis nga ko gis nga ko gis nga gis nga xam nga bagaar dëri la ko indi xoolal voilà gis parce que kor na ko mu siggi jam ko jamaat siggi bi mu siggee xam nga war a def moom ràcc rek dugal loxoom ci biir rek la waroon def waaw bi ko wàaji na ci téye pour bëre it dangay ngay téyante moom pour bëre loo tax loo tax mën a bëre wóor mais père combat bi liñ ci séntu woon mooy xeex bi dañoo yaakaaroon avantage de alors que bi bi arbitre bi sifflé Tapha Tine gisuñu ko mu xeex gisuñu ko mu bëre lan la. mais loolu li ma yaakaar. Hmm. dañ ko napp toujours ci bëri bi. Hmm. bul xeex defal nii bul xeex mais man lu ñu la napp napp napp boo ñëwee ci làmb yi li ma sama xel may laay def. Hmm. parce que Tapha Tine Balla ko gëdd benn yoon moo dem saako yëpp. gëddaat ko benn yoon ñaari yoon mu gëddaat ko saako yëpp mu dem. dellu at mu woowaat ko ñaari yoon ñu taw di ko attaqué ci kaw di ko xeex te loxoom teewul ay arrêt de gauche fu mu jëm ak bëtt ci suuf lu muy def. a song war a jëli war parce que am na ci loo xam ne ci contre Balla bi su xeexul du ko am. Mhm. parce que Balla dafa mën a bëri. dafa mën a bëri ndaanaanu boo xam ne bii day xeex day bëri. waaw ko ba mu concentré mais day xeex day bëri. te comme ñaari njool la comme moom te Balla fu mu xeex moom pour bëtt ko moom it. parce que Balla Gaye dafa dafay jeexal si bëri bi loolu la def li mu def nii lu yoonu bëri la jaar. Mhm. yoonu bëri bi la jaar mais nag Tapha Tine mi war na ko mën a bañ a may loolu. Mhm. mais loolu mu ko bañoon a may nag lu ñuy jàng indiwaale la ko doo ñëw ba làmb ja door koo def déedéet da koy jàng teg teg Balla Gaye jàng adversaire bi lii lay bëree hmm. mais bu bëree lii ngeen di looloo tax may la am coach bu mën a bëree hmm. mooy tax ñuy wax coach tegal la adversaire bi lii lay bëree su bëree lii lii ngay def hmm. su defee lii lii ngay def lii nag bul ko may loolu mooy xam-xam bi mais soo ko mayee am na ci loo xam ne boo ko mayee àdduna daan ñàkk nga dëgg la ah, waaw ndaanaan am na loo xam ne boo ko may dootoo ko def mukk ci àddina. wallaay euh, ah. mbokk yi jërëjëf loolu lañ leen indi loon tey mm-hmm. ci jàngat làmb ji bàyyi jëli Père Birahim mm-hmm. euh, di leen allah ci beneen xew-xewu laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne boo jaar fafa laa mëne damaa mën ci bii boor mën ca bee boor mën ci boor ak ci yële boor bàyyi Fatou Ndiaye niroowu ma ñoom. rew ma juut waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma